Ousmane Sonko di jàkkaarloog doyen des juges niki altine ji yemook fanweeri fan ak benn ci weeru sulet ak kenn ci ay avocat ñeneen ñi koy layal bàyyiwuñu leen ñu gisanteeg moom loolu moo tax sax maître Ciré Clédor lii ñaawlu na ko bu baax a baax dugg fii nag ci tribunal bi jafe na loolu yenn militant yoo xam ne dañoo ñëwoon ànd ak euh, seen leader ñoom ñëpp dañu leen jëlee ci yile bërëb ginnaaw bi ñu leen escorté ñu dal di dem seen yoon. ñenn ci coalition Yewwi Askan Wi bokk na ca Déthié Fall ñoom nag mënuñu woon dugg ci bile tribunal waaye ginnaaw ay waxtu bi audition bi dooree Déthié Fall ak Guirassy mujj nañoo dugg ci biir palais de justice bu Ndakaaru Cheikh Tidiane yu moom itam ñëw na jàppale kii di Ousmane Sonko dispositif sécuritaire bi nga xam ne ci suba dafa bari woon loolu daldi nañu koy wàññi ni ñu koy defee saa su nekk ñenn ci askan wi ragal nañu fitna moo tax sax dañoo daal di toog seen kër moo tax tribunal bi dal la ñu fi seetlu lu ko wër nag ay commerçant yom dañoo dal di tëj seeni boutique ndax danoo ragal ñu yàqal leen ginnaaw ñeenti waxtu ba audition bi jeexee doyen des juges dal di topp réquisitoire euh, procureur bi ci noonu Ousmane Sonko dañu koy dal di placer sous mandat de dépôt mu dal di nag fanaani guddeem bu njëkk ca kaso ba